Fatou Fall, je suis la chargée de programme et suivi des opérations, point focal genre et droits humains Global Fund, plan international Sénégal. Je dirais que c'est la deuxième session que nous organisons avec le service départemental du développement communautaire à travers la plateforme régionale des femmes leaders. Je pense que qui dit femme leader dit une femme qui doit être bien outillée, qui doit être bien formée. Donc c'est l'objet de cette formation-là, outiller les femmes, faire en Euh, de nous appuyer dans ce que nous faisons dans la lutte contre les maladies. Euh, et aussi, il y le genre que la population ne connaît pas assez. Donc euh, ça aussi, ça nous permet vraiment de les orienter, de les renforcer davantage sur le genre, parce que c'est des concepts que les gens ne maîtrisent pas et qui vraiment mériteraient d'être plus, plus Euh, déployer, d'être plus vulgarisé pour que les gens puissent savoir qu'il y a des normes de genre qui, font, qui sont des contraintes vraiment à l'accès aux services de santé de manière équitable. Donc c'est la raison pour laquelle on est là en train de les former. Et cette cible aujourd'hui, c'est une cible qui est spécifique parce que c'est des personnes qui sont des personnes qui vivent avec un handicap. Et je pense que qui dit plan dit inclusion, une structure, une organisation qui est vraiment centrée euh, de, dans tous les euh, aspects pour que tout le monde puisse être au même niveau, pour que tout le monde puisse être au même euh, euh pied pour vraiment euh, que l'inclusion que soit totale, mais aussi que tout le monde soit accepté, euh, quel que soit son handicap, quelle que soit sa nature, quel que soit qu euh, soit, donc qu'il soit accepté par la communauté. Donc c'est la raison pour laquelle euh, nous avons accepté vraiment de financer ces formations-là parce que nous savons pertinemment que c'est des formations qui vraiment seront bénéfiques à la communauté parce que les femmes leaders que nous allons former vont démultiplier l'information, vont vraiment aller vers la base pour discuter avec cette base-là de ce que nous allons leur dire ici et de tout ce qui sera vraiment euh, fait suite à cette formation. Donc c'est globalement ça que nous sommes venus faire ici. Euh, et c'est le bureau régional de Thiès qui a bien voulu vraiment porter cette activité à travers nos collègues Serigne Bayouade, qui est le chargé de projet ici à, dans toute la région de Thiès, mais aussi avec Abibou Faye, qui est le chargé de la mise en œuvre au bureau régional de Thiès, sous le leadership de Ousseynou Diop et de Samba Fatim, qui sont vraiment des leaders je dirais, des hommes leaders, aux <laughs> côté des femmes leaders, voilà, qui interviennent vraiment pour que nous, agents de plomb, staff de plomb, pour vraiment mener les activités de terrain. Donc c'est le lieu de les remercier vraiment pour que vraiment ce, ce, que nous sommes en train de faire puisse être vraiment visible. C'est grâce à ce soutien-là, mais aussi grâce au soutien de l'équipe Global Fund dirigée par le docteur Alpha Diallo. Nous, nous dirons que le coût global des activités que nous allons mener est presque un coût de un peu plus de 4 millions. Donc c'est une série d'activités que nous menons sur le terrain et qui va vraiment euh, être au bénéfice des communautés. Donc c'est un coût global pratiquement de plus de, millions que, que nous allons donner euh, au service de développement communautaire pour pouvoir... Et disons que c'est un début de partenariat, c'est un début de partenariat parce que nous savons que le service de développement communautaire, à travers le, le, la plateforme régionale des femmes leaders, est vraiment une structure qui est là et qui a une force vraiment de pénétration dans la communauté et qui pourra permettre vraiment d'atteindre nos objectifs en matière de santé, mais aussi en matière de développement. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un début de partenariat qui va vraiment se renforcer, s'intensifier au bénéfice des communautés. Bien sûr qu'il y aura un suivi qui sera fait, parce que n'oublions pas que tout ce que nous faisons, c'est pour atteindre des objectifs. Et pour de ces objectifs-là, il y aura des outils que nous allons pour évaluer. Et cette l'ai dit tantôt, de voir quest de faire pour que ce partenariat soit encore plus fécond, pour que ce partenariat soit encore davantage euh, renforçant pour les communautés que nous servons. Donc c'est sûr qu'il y aura un suivi qui sera fait, Inch'Allah. Salam alaikum, euh, c'est Borsonia, je suis au service de développement communautaire de euh, tey nag li ñu fi dajale mooy jàppale suñu mbokk handicapé yi ak jigéen ñi ci benn insertion ak waxtaane li ñuy wax genre ñu ànd ci ak suñu partenaires yi plan international. pour pour gën a kii xale yi wax leen seen seen seen loi seen i droit ñu gën a xam seen loi loi d' orientation bi daal la ñuy waxtaanee tey ci bi mu ngi jógee ci service euh, développement communautaire parce que dañuy liggéey ak euh, plateforme des femmes handicapées de Thiès euh, ñuy gis ni ñu doxee ak seen lu ci ëpp ñuy bokk ak ñoom yenn activités yi après ci leen ko soumettre ay partenaires plan international nag jàppale ñu nangu à ñu ñu ñu insérer leen ci société bi parce que dañuy gis que ni suñu mbokku handicapé yi parfois dañuy porter benn fardeau bu luux boo xamante ni euh, maanaam ci ci discrimination lañ koy jëlee parce que nit ñi dañ leen di xoole bët bi wala bët baa te alors que ñoom soxlawuñu loolu soxlawuñu suñu yërmande peut-être du ma ni soxlawuñu ko mais boog li ñu gën soxla ci ñun mooy ñu boole leen ci suñu bopp insérer leen dooleel leen bañ leen a beddi bañ leen a xoole benn bët boo xamante ni dafay wane ni ñi dañu am lu ñu manqué parce que handicap euh, du nit ki dafa manqué ceer loolu mooy handicap parfois handicap mën na nekk mentalement te te nit doo ci bàyyi xel nga koy wax yenn moo yoo xamante ni daf koy euh, comme ni dafay toucher sensibilité sensibilité am ak yeneen ak yeneen ak loolu li ko waral mooy dama la wax léegi ni la mbirum insertion ci lañ nekk te kuy boole amoo droit beddi amuñu droit beddi inclusion amuñu droit kon beddi euh, yi amuñu droit beddi leen dañu dañuy dañuy wane toujours que ne ñun ak ñoom benn lañ loolu moom moo waral foo ci suñu biir aussi mu am ci. maa ngi tudd Kolle Ngaye maa ngi nekk euh, monitrice euh, en enseignement ménager au centre des handicapés moteurs nekk en même temps présidente groupement des femmes handicapées. waaw yëg-yëg bi première yëg bi mooy di sant ak di gërëm madame Bakhoum parce que moom ba mu ñëwee ci la ñu commencé santé suñu bopp ci parmi les femmes de Thiès. wax dafa ñëw ñu def créer la plateforme des femmes leaders ñun ñu nekk ci biir plateforme bi amul benn benn amul benn body boo xam ne def nañ ñu ko benn yoon bépp lépp lu muy def rek dafay jël en compte les femmes handicapées mu nekk loo xamante ne ni vraiment jàppale nañu euh, à que ñu mën a gën a feeñal ñun suñuy suñuy suñuy mën-mën ak suñuy pexe parce que nu sommes des femmes mais nekk ay jigéen nañ nag yoo xamante ne ni tamit ay jigéenu jàmbaar nekk ci biir kenn ku nekk yor ay métier yor yor liggéeyam ñu ñëw fii tey jii ci participer ci formation bi. ah waaw vraiment parce que avant muy ñëw moom vraiment man jeune ne savais même que jigéen ñi daan nañu di daje di jàppalante ak di kii nii vraiment xaw ma nag peut-être xaj na dafa tombé daal ak moom. formation yi moom vraiment tax na ñu gën a yëg suñu bopp parce que lépp lu muy def ay formation ak waa HI ak yeneen yeneen ak yeneen i partenaires. lu muy def lu nekk daf ñuy convier ñu ñëw bokk ci li nga xam ne moom la ñuy def. Oh. en français et en wolof ah wala wolof ah d'accord man maa ngi tudd Ndiaga Mbengue euh, nekk responsable unité communication et marketing nekk si service régional bu agence nationale de la couverture bu SEMI bu nekk Thiès waaw dama ñëwoon tey ci ndaje bi nga xam ne. service départemental euh, au développement communautaire euh, suñu jigéen jiite ko muy madame mbaaxum ci formation bi nga xam ne moom sumoon na ko ànd ci ak partenaire bi ñu wax plan international bu Sénégal ànd ci aussi ak plateforme des femmes leaders de Thiès mu nekk euh, formation yooyu xam ne nag yaakaar naa bii mooy ñaareelu sumb bi ñu war ci waxtaanee ci wàllu anamu àq ak yelleefu jigéen ñi ak góor ñi ak xale yi ak surtout ni ñu war a doxalee euh, programme yi nga xam ne c'est des programmes yi nga xam ne c'est des programmes communautaires ñu lëkkaloo ci nag ak service état yu nekk fii yu bëri yi nga xam ne tey ku si nekk rek am nga euh, loo ci mën a def yaakaar naa tey loolu moom moo fi indi bi ñu ñëwee aussi fekk nañ fi vraiment que ndaje bi ndaje bi am solo la fekk nañ fi ñu xereñ ah, ay experts ñu ngi fi toog di ñuy waxtaan di ñu waxtaan di ñuy xamal li nga xam ne ci wàllu genre nan la tëddee ak plan aussi nan lay doxalee ak yenn service yi action sociale nan lay doxalee ak ñun agence couverture universelle bi nga xam ne ñun ñoo yore wàllu maanaam oyofal paj ak maye paj suñu taxawaay aussi si rawatina ci ñi nga xam ne ay waay laago lañ. ak ñi nga xam ne aussi dañuy day nekk day couches vulnérables donc ci politique boobu tax na bi ñuy invité ñu ñëw ci wuy si nga xam ne njëriñu askan bi rek moo tax a jóg développement communautaire ñun aussi ci loolu la ñu guddi ak bëjëk ci loolu la ñuy liggéeyee waaw leen sant di leen sant di leen gërëm c'est bon.